ba noppi dem kër ñum tuuti yendu fa jël yëre tuuti ñu def ko ci mbuus bi ay la Keba waxal ak sa yaay franchement nag lu ëpp tóoru Aïda Diagne la la def Keba ñaatoo laar moom nga wéyte Aïda Aïda bul jëlale may wax dama ne fan nga demoon ak sa yëre yi takk suuf nii sa yoon nekkul si fi ma demoon te bàyyi di ma woowee Aïda mosu laa doon lu mu doon tuuti ñaanuma la ordre nga te danga ko def Bousra bi bàyyi ko mu sëy sëyam. tey sama xol dafa neexul dama bëgg nga suukaral ma ko. loolu du problème. mais Aïs dimbale ma rek ngir yàlla bul ma laaj kan la ndax bëgguma la ko wax. la moo tax am faram nga bëgg ko nangu ci moom jox ko lu sa problème ak man ah Dior Fall.